أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu borom bi subhaanahu wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi tey suñu tomb bi ñuy jël mooy xadiisu abi muusa al ashari radiallahu anhu moom abi muusa moo ñu doon nettali xadiis bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngal nanu ko waxoon naa leen ne ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala bëgg nanu mokkal ñaata hadis 40 bi iznillah bi mooy premier hadis hadis baa ngi wax ci ngëneelu fadlu zikri ngëneelal tudd yàlla ngëneelal tudd yàlla tabaraka wa taala abi Moussa kenn la woon ci ñu doon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom abi Moussa day netti la nañu hadis bi mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na mathalu alladi yadkuru rabbahu walladi laa yadkuru rabbahu mathalu lxayyi walmayit rawahu lbuxaariyi abi musa nee na yonent bi nee na yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam masalu misaal allazi waa ji nga xam ne yazkuru rabbahu day tudd boroomam fu mu toll wallazi ak waa ji nga xam ne laa yazkuru rabbahu du tudd boroomam masalu mu ngi mel ne boo ko doon misaal alxayyi kuy dund wal mayit ak ku dee xanaa hadis bi yonent bi daf cee tënk benn misaal ci kuy fàttaliku boroomam ak ku dul fàttaliku boroomam yonent bi mu ngi mu ngi mel ne diggante kuy dund ak ku dee diggante dund ak dee luy différence bi diggante dund ak dee lan mooy différence am na différence wala amul différence Mamadou diggante dund ak dee lan mooy différence bi lan moo leen xaajale am nañu xaajali ko wala amuñu ko lan moo leen xaajale nan la leen xaajale nan la leen xaajale misaal la bu xel nangu di nee na kenn ci kaw kenn ci suuf wax na dëgg de maanaam kii dund moom moo nekk ci kaw xanaa kii dund moo nekk ci kaw kii dee xanaa moo nekk ci suuf kon kii dund moom moo dëkk ak nit ñi kii dee moom la ñu yóbbu génne àdduna bi yóbbu ko kon misaal bi mooy kii dund mu ngi ci àdduna kon kii tudd yàlla mu ngi ci àdduna ki dul tudd yàlla dafa dee mu ngi fan moo ngi àllaaxira kon misaal bu sorante la yonent bi daf leen daf leen daf leen misaal ñoom ñaar ñi mu ne sarhul xadis bu ñëwee ci ni ñuy firee xadis bi mu ne haada ablaghul xadis xadis bi dafa jottali sarx bi dafa jottali lan la leeral moom xadis bi fii bayaani ci leeral fadlu zikri ngëneelu tudd yàlla xadis bi dafa ñëw di ñu jàngal yéen ngëneel moo nekk ci tudd yàlla tabaraka wa taala hay su jaala zikri bi mathabati ruux ndax xadis bi dafa def tudd yàlla mu def ko jëmmu nit xadis bi dafa indi tudd yàlla mu ne mooy jëmmu nit jëmmu nit lan moo ko nekk lan moo ci nekk jëmmu nit lu ci nekk jëmmu nit lu ci nekk jëmmu nit lu ci nekk jëmmu nit lu ci nekk ay cër am na bopp am na nopp am na bët am na tànk am nay loxo am nay tànk am na biir jëmmu nit yëpp boo ko boolee ay cër ñoo composé nit waaye ci cër yooyu yëpp am na liy tax cër yooyu di dund loolu moom mooy ruux maanaa yonent daf ñu doon misaal jaamu yàlla yëpp mu ngi mel ne jëmmu nit waaye jaamu yàlla yooyu lan mooy tax ñu dund lan mooy tax ñu ñu ñu ñu développé ruux yonent bi misaal ñu ko ci yaram yaram am nay cër waaye cër yooyu lan moo tax ñu dund ah cër yooyu lan moo tax ñu dund ruu su ruu génnee cër yooyu dañuy dee yonent bi misaal ñu ko nag ci ñaari nit ñi nga xam ne kii day tudd yàlla kii du tudd yàlla ñaari nit ñi nga xam ne kii day jaamu yàlla kii du jaamu yàlla ñaari nit ñi nga xam ne kii dina fàttaliku yàlla kii du fàttaliku yàlla yonent bi ne kii tudd yàlla kooku mooy misaalu ki dul ki dul tudd yàlla moom dafa dee moo tax mu ne xaysu jaala zikr yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis bi dafa jël zikr jox ko bi masaabati ruu jox ko mu am jëmmi ruu lil jasadi ci yaram mbokk yi nit mën na dox te amul nopp de ah nit mën na dox te amul bët de ah nit mën na dox te amul loxo ah nit mën na dox te amul tànk nit mën na dox te amul bëñ nit mën na dox te amul kawar est-ce que nit mën na dox te amul ruu mun ta dox te amul kon gis ngeen zikr zikrullah ci jaamu yàlla yi mi ngi mel ni zikrullah ci jaamu yàlla yi mi ngi mel ni ruu kon jaamu yàlla yi buñ ci dindee zikrullah lu ci des dara nekkatu fa kon mbokk yi utal leen seeni bopp ay wax ngeen di wéet ak seen boroom ko fàttaliku di ko tudd yonent bi alayhi salaatu wasalaam day jàngal na la ay azkar fi sabaax wa fil masa ci suba ak ngoon wa qad samma allahu azza wa jalla al aziz ruuxan wa huwa azamu anwaa'i zikr kazalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla subhanahu wa taala wax na ci alquran yow yonent man maa lay ruux muy alquran afdalu zikri mooy qiraatul quran li gën ci zikri mooy nga jàng alquran xam nga am na ci yéen ñoo xam ne bala ñu jàng alquran ñu jël jaas am na ci yéen ñoo xam ne bala ñuy jàng alquran jaas yi taxaw yéeg taxaw boole koo ki yor jaas bi yor yat bi day takku ba dëgër ngeen doog a jël seen téere yi jàng fekk ab julit saa yu xëyee lu mu alku alku war na jàng benn hisib ci quran benn hisib maanaam julit waru xëy suba ngoon ay bëtam teguwul ci kaamil quran xëy suba ngoon ab julit warul mel noonu gaa yi bëgg leen tiyaaba waay comme ni ngeen bëggee xaalis bëggee leen noonu tiyaaba lu ko raw xaalis bi ngeen bëgg ci àdduna la lay des amma àllaaxira tiyaaba yi moo fay dem kon bëgg leen tiyaaba fa qaala taala wa kazalik awhayna ilayka ruhan min amrina yàlla nee na yonent naka noonu laa la joxee téere boo xam ne ruux la ruux mooy lu lay dundal allahu akbar gis ngeen jàng alquran tudd yàlla day dundal day dundal ruux ab julit feek mi ngi tudd yàlla tabaraka wa taala rek yàlla daf koy baaxe tiyaaba kon mbokk yi góorgóorlu leen fexe leen ngeen di jàng alquran bis bu nekk waaye fexe leen ngeen di tudd allahu tabaraka wa taala ndax ci tudd yàlla ci ngeen di amee tiyaaba ci la leen yàlla tabaraka wa taala di bëggee ci la leen yàlla di fayee ci la leen yàlla di nawee ci la leen borom bi tuba tabaraka wa taala di leen defale ay xéewal yoo xam ne di ngeen ko am àdduna am ko àllaaxira xam ngeen ne tudd yàlla day dundal ruu tudd yàlla day dundal ruu tudd yàlla day dundal xol yàlla nee na ci alquran fazkuruni azkurukum fàttaliku leen ma fu ngeen toll ma leen di fàttaliku yàlla wax na ci alquran wazkurullaha zikran kasira de leen tudd yàlla lu baree baree baree baree baree bari mbokk yi tudd yàlla kenn mënu koo tollale ci àdduna ci ay tiyaaba yu ñu am yu mu am ki texe àdduna mooy ki tudd yàlla lu baree bari ki gën a texee di ci àdduna mooy ki dul tudd yàlla ki dul fàttaliku yàlla tabaraka wa taala gis nga nit ki nga xam ne day tudd yàlla kooku bis bu nekk am na tiyaaba yoo xam ne du jeex tiyaaba yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo koy defal ci ay ngëneel ndax lan moom mooy nekk xaritu yàlla ndax moom de fu mu nekk mu ngi fàttaliku yàlla fàttewul yàlla moom moom ci programme am yàllaa ngi ci su guddee am na waxtu wu muy tudd yàlla su bëccëgee am na waxtu yu muy tudd yàlla ci diggante suba ngoon am na fi waxtu yu muy tudd yàlla moom jamono yu nekk xelam yàllaa ngi ci kooku nag xam ngeen ne xaritu yàlla lay mujj doon soppe yàlla lay mujj doon ndax moom bi nit ñi fàttee yàlla moom moom moo fàttaliku yàlla yéen ñi sax xam ngeen ne bu ngeen amee xarit yu leen di fàttaliku guddeeg bëccëg ak nit ñi nga xam ne duñ leen fàttaliku ñan ñooy nekk seen xarit nee na zikrullah wa asaasul ubudiya tudd yàlla mooy fondement jaamu yàlla li annahu unwaanu sila al abd bi xaaliqihi fi jami awqaatihi wa ahwaalihi allahu akbar mbokk yi tudd yàlla mooy fondement jaamu yàlla mooy asaas asaas fondement kër gu fondement bi taxawul tabax bu fondement bi tabaxul taxawul ndax dina dëgër déedéet day daanu kon góorgóorlu leen seen jaamu yàlla na am fondement bu dëgër fondement bu dëgër ci jaamu yàlla nag mooy ngay tudd yàlla lu tax zikrullah mooy asaasul ubudiya lillah mooy li annahu unwaanu sila silatil abd bayna xaaliqihi fi jami awqaatihi wa ahwaalihi ndax mooy buum buum gi jokkale diggante yàlla ak jaam ban buum la mooy zikrullah da ngaa bëgg a jokkoo ak yàlla kan ci yéen moo bëgg a dem ci yàlla ana ngeen ñu bëgg a dem ci yàlla anañu dee leen tudd yàlla jamono bi ngay toog ci kanamu télé bi di seetaan depuis suba 8 heures ba midi nga toog ci kanamu télé di seetaan doo ci xaaj tuuti boobu doo ci xaaj tuuti loo jox yàlla boobu 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures midi ñaata waxtu la juróomi waxtu 5 heures de temps nga jël yëpp jox ko télé waaw doo jël sax boog 2 heures yi boog nga jox ko yàlla boog nga wàññi ko boog ngir yàlla waaye nga toog seetaan théâtre théâtre jeex nga seetaan film film jeex nga seetaan soirée soirée seex jeex nga seetaan Kouthia Kouthia jeex nga seetaan Mickey ba kañ kañ ngay kañ ngay jox yàlla dara mbokk yi li annahu unwaanu silati l abdi bayna xaaliqihi fi jami awqaatihi wa ahwaalihi faana Aïcha jële nañ ci soxna Aïcha mu baax mi radiyallahu anha wa ardaha qaalat kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yazkuru llaha fi kulli ahyaanihi rawahu muslim jëlee nañ ci sunu ndey Aïcha nee na yonente bi alayhi salatu salaam waxtu wu nekk da doon tudd yàlla waxtu wu nekk fi kulli ahyaanihi kaana yazkuru llaha yonente bi da doon tudd yàlla fi kulli ahyaanihi ci mbooleem jamono yëpp yonente bi moom amul woon waxtu bu muy seetaane télé ndeysaan wax di mu doon tooy rek moom ndeysaan huit cinq heures de temps di ko seetaan télé moom kaana yazkuru llaha fi kulli ahyaanihi idan ayuha al ahbab fal irtibaatu billahi xayaatun walluju ilayhi najaat walqurbu minhu fawz wa ridwan walbudu anhu dalalun wa xufraan ñu ngi jeexale sunu darsu tey jokk ci yàlla maanaam jokk ci yàlla mooy tax nit dund lan mooy jokk ci yàlla nga takkoog yàlla kole ak yàlla ànd ak moom mooy tax nga dund wa luju ila allah najaat làqatu ci yàlla mooy tax nga sauvé mooy nga rëcc nga rëcc àdduna rëcc àllaaxira su la xaj doon dàq xaj bu soxar mu lay dàq mu ngi sa ginnaaw di lay dàq ngay daw dajeeg borom xaj bi nooy def koy làqatu ci borom xaj bi lu tax ngay làqatu ci borom xaj bi ndax ba xam nga ne xaj bi du yegsi bu yegsee mu ne ko benn baaraam rek xaj bi taxaw seytaane xaj la kan moom moom seytaane kon boo làqatoo ci ginnaaw yàlla rëcc ci seytaane waaye bu la seytaane dàqee nga ne naa daw dugg ci kër seytaane kër mënu koo téye naa dugg sama néeg seytaane néeg mënu koo téye naa sàngoo mbàjj seytaane mbàjj mënu ko téye naa dugg ci ronlal gi seytaane ronlal mënu ko téye seytaane kenn dong moo mën ci moom dara muy yàlla kon boo làqatoo ci yàlla rëcc wal qurbu minhu fawz ku jege yàlla texe nga wal qurbu minhu fawzun ku jexe ku jege yàlla rek texe nga waaye mucc nga rëcc nga wal bu'du anhu dalal wa xusraan mbokk yi ku sori yàlla perte nga réer nga ku sori yàlla perte nga réer nga kon nag fexe leen seen dund boole leen ci zikrullah ndax zikrullah mooy asaasul ubudiya ñaareel bi mooy zikrullah huwa al furqaan bayna al mu'min wal munafiq wal munafiq tudd yàlla mooy tax ñu xàmmee jullit ak naafiq nan la ñuy xàmmee jullit ak naafiq kuy tudd yàlla kuy tudd yàlla jullit nga ku dul tudd yàlla naafiq nga dégg nga yàlla bu muy wax misaali alquran ci alquran naafiq yi mu ne wala yazkuruna allaha illa qalilan du ñu tudd yàlla lu dul tuuti naafiq yi xam nga kañ lay xelam di dem ci yàlla bu gisee accident deret di tuuru mu ne laa ilaha illa allah wala mu ay étage di daanu mu ne tiit laa subhanallah saa yu gisee daal lu ko ragal lu ko ragal lu coow boobu la xelam di dem ci yàlla am maa nag jullit nag moom moom waxtu wu nekk waxtu wu nekk mu ngi tudd yàlla xelam mu ngi ci yàlla zikrullah huwa al furqaan bayna al mu'min wal munaafiq tudd yàlla mooy tax ñu xàmmee ku gëm ak ku gëmul mbokk yi fa sifatul munaafiq annahum laa yazkuruna allah illa qalilan mandraga naafiq yi mooy du ñu tudd yàlla lu dul tuuti tuuti du ñu tudd yàlla lu dul da tuuti ay seconde ñetteel mooy alcheytaanu laa yaxlabu l insaan illa isa gafala an zikrillah seytaane kañ lay gañe nit seytaane kañ lay gañe nit boo tuddul yàlla boo tuddul yàlla rek seytaane ñëw ne faax sa xol léegi nag tudd yàlla da ngeen defe ne da ngeen toog rek naan subhaanallah subhaanallah subhaanallah alhamdulillah laa ilaha illa allah allahu akbar laa hawla wala quwata illa loolu loolu baax na de waaye tudd yàlla xam nga nuñ koy defee booy lekk bismillah booy tëdd boo yeewoo booy sol yére booy dugg ci duus looy def bismillah soo paree alhamdulillah soo paree alhamdulillah looy def tuddal yàlla xorom bi ngay xorome cin bi sax booy jël xorom bi di ko dugal ci cin bi waxal booy jël cin bi sax di ko teg ci gaaw kaw gaz bi wala furna bi waxal booy jël big bi sax di ko teg ci kaw kaye bi di bind waxal soo paree waxal alhamdulillah ak a néew ci yéen ñuy lekk di tudd yàlla soo loolu lépp da ngay wax bismillah boo paree nga ne alhamdulillah sooy dugg ci kër bismillah sooy taal télé bi bismillah boo paree alhamdulillah noonu la ñuy tuddee yàlla da ngay fexe wala yazaalu lisaanaka ratban bi zikrillah benn waaye daa ñëw ci yonent bi ne ko yonent man dey mbirum lislaam dafa diis sama kaw dama sonn yonent bi ne ko fexeel sa làmmiñ bi tudd yàlla foo nekk del tudd yàlla kon seytaane du noot kuy tudd ku koy tudd seytaane du noot kuy tudd yàlla allahu huwal xisnul xasin allazi yaxmil insaan min makaidi cheytaan yàlla mooy tata yàlla mooy barrage yàlla mooy barrière bii baare doomu aadama ci cheytaane yàlla moo lay baare ci pexe cheytaan kon del tudd yàlla ndax cheytaane bàyyi la gis ngeen xam ngeen lu tax cheytaane gañe leen lu tax ngeen bëgg football lu tax ngeen bëgg théâtre ah lu tax ngeen bëgg seytaane parce que du ngeen tudd yàlla essayé leen ko bu ngeen commencé di tudd yàlla rek léegi ngeen bàyyi yooyu essayé leen ko mbokk yi juróomeel ñeenteel mooy azzikru huwa tariqu saada qaala allahu taala alladina amanu wa tatmainnu qulubahum li zikrillah ala bi zikrillahi tatmainnu alqulub suratu raad aya 28 azzikru wa tariqu saada tudd yàlla mooy yoon wi lay texeloo kan ci yéen moo bëgg a texe kan ci yéen moo bëgg a dugg aljanna ban yoon moo koy texeloo mooy tudd yàlla yàlla nee na ci qur'an alladina amanu wa tatma'inna qulubahum li zikrillah ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla seen xel dal ci tudd yàlla yàlla nee na ala bi zikrillahi tatma innul qulub waaye mbokk yi ndax tudd yàlla du dalal xel waaye yàllaay leen di laaj de du ngeen tont ndax tudd yàlla du dalal xel ndax tudd yàlla du dalal xol kon ku sa xol di rëngi-rëngi sa fit di tëb del tudd yàlla tabaraka wa taala léegi sa xel dal ixwaani la budda min zikrillah min ad dawaam alad dawaam dee leen tudd yàlla il faut ngeen di tudd yàlla te saxal ko ndax kat kenn du mën a dugg aljanna lu dul kuy tudd yàlla naam la budda min zikrillahi alad dawaam dee leen tudd yàlla toujours fa ngeen mën a toll waa aljanna xam ngeen lan la ñuy réccu bu ñu duggee aljanna waxtu yi ñu doon toog duñ ko tudd yàlla waxtu yi ñu doon toog di ko perte waxtu yi ñu daan nekk mbedd di football waxtu yi ñu daan seetaan télé waxtu yi ñu daan nekk ci mbedd yi duñ def dara waxtu yooyu mbokk yi waa aljana buñ duggee aljana dañ koy rëccu ndax amoon nañ temps biñ nekkee ci àdduna toog tudd yàlla jaamu yàlla waaye ñu nekk ci ci ay caaxaan léegi nag buñ demee ba gis tiyaaba yi dañ naan ñun bu ñu xamoon kon du ñu nekk ci mbedd yi di tambaamalu du ñu nekk ci saal yi toog du ñu def dara kon mbir yaa ngi noonu waa aljanna ngoogu danañu rëccu ëllëg yowmal qiyaamati lu tax bu ñu woon lu tax jaamu woon yàlla tabaraka wa taala lu tax tudduñu woon yàlla lu tax saxaluñu woon seen xol ci jaamu yàlla tabaraka wa taala lu tax tudduñu woon yàlla heure yi leen daan romb inna dawaami zikri yuiinu dawaaman assilati billah tudd yàlla tabaraka wa taala daf lay saxal bis bu nekk ngay jokkoog yàlla tabaraka wa taala qaala al imaamu nawawi ajma al ulama ala jawaazi zikri bil qalbi wal lisaan lil muhdis wal junabi wal xaa'id wal nufasa wa zalika fi tasbiixi wa tahmiidi wa takbiiri والتحليل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء بخلاف قراءة القرآن mbokk yi imaam Nawawi nee na boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ daganal tudd yàlla nit mun na ko def ci xolam nit kaa ngi ni toog waaye xol baa ngi tudd yàlla tudd yàlla dinañ ko def ci làmmiñ nit kaa ngi ni toog di tudd yàlla ci làmmiñam tudd yàlla nag laajul njàpp ah man def soo gisee tudduma yàlla mooy jàpp ma dee de boo amul njàpp sax mën ngaa tudd yàlla boo amee janaaba mën ngaa tudd yàlla boo gisee baax mën ngaa tudd yàlla boo amee doom mën ngaa tudd yàlla naka noonu sàbbaal yàlla subhaanallah alhamdulillah wa laa ilaha illa allah allahu akbar allahuma salli ala muhammadin wa sallim nga ñaan yàlla li yëpp mën nga kaa def waaye bi xilaafi qiraatil quraan bu fekkoon ne da ngaa da am janaaba nag wala nga gis baax wala nga am doom loolu moom doo mën a laal alquran doo mën a jàng alquran ndax tudd yàlla moom mën nga kaa def ci jamono bu nekk laajul njàpp amma jàng alquran nag dafa laaj laab dafa laaj set ndax borom bi nee na laa yamassahu illa almutahharun seydina ali jëlee ci yonente bi ne laa talmasil quran illa wa anta tahir bul laal alquran lu dul da ngaa laab kon imam nawawi nee na tudd yàlla dinañ ko defe xol dinañ ko defe làmmiñ waaye tudd yàlla laajul njàpp laajul am janaaba laajul gis mbaax laajul am doom loolu moom lu la neex nga def tuddal yàlla waxal subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar la hawla wala quwata illa billah ñaanal yàlla jullil ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye bu fekkee nag da nga bëgg a jàng alquran moom foog nga dem sangu ji wala nga dem jàppi man yazkuru rabbahu azza wa jal yazkuruhu rabbahu képp kuy tudd yàlla yàlla dina la tudd boo toogee ci kaw naan ya allah ya rabbi subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allahu akbar ndeysaan yàllaa ngi kaw ci malaul aala naan malaaka yeeg jaamam yi xool leen sama waajee sama xarit bee mu ngi ne la toog di ma tudd ndeysaan yaa ngi fàttaliku yàlla xoole yàlla mu ngi yàlla nee na soo ma tuddee ma tudd la ci mbooloo mu gën mi ngi ma tudd ndeysaan ndeysaan ndeke yaa soo tuddee yàlla yàlla tudd la ci mbooloo mu gën mi ngi ko tudd soo tuddee yàlla ci place yàlla tudd la ci place bu gën place bi nga ko tudd gars yi di leen tudd yàlla waay kan ci ñun fii moo pare di tudd yàlla suba ngoon kan ci ñun benn ñaar ñett ñe kon kay ñun ñëpp pare nañ gars yi nañu am waxtu yu ñuy wéet di tudd suñu borom kan ci yéen moo pare pour def loolu ginnaaw tey nga heure yoo xam ne da ngay fàttaliku sa borom suñu paree dars ku nekk dina ma wax heure boo xam ne ci la koy def ma noté ko bind ko yenn saa yi bu heure boobu jotee ma dugg sa néeg wala ma ñëw ci place bi nga nekk ma xool ci loo nekk bi iznillahi tabaraka wa taala kon mbokk yi lii mooy dars tey ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jëriñ ñu ci mu defal ñu tawfiix adduna ak alaxira xadis bi ñu doon jàng abu moussa al ashari moo ñu ko nettali nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na masalu alladi yazkuru rabbahu walladi la yazkuru rabbahu masalul xayyi wal mayit misaalu ki nga xam ne day tudd boroomam di ko fàttaliku ak ki nga xam ne du tudd boroomam du ko fàttaliku yonent bi nee na mu ngi mel ne masalul xayyi wal mayit mi ngi mel ne kuy dund ak ku dee kuy dund nit ñi bëgg nañ dëkk ak yow ku dee nit ñi daal lay sori yuuxu nit ñi ñëw ñu ne jël leen suuli ko parce que dafa dee waaye kuy dund kan ci ñun mu am xarit bu dee nekkati loxo am naa xarit bu dee aca boo ko ko dégg ku koy wax am naa xarit bu dee kañ ngeen dégg mu koy wax ñun ñëpp ay xarit yu dund lañu am ku dee pare nga ci moom sa jëkkër sax bu dee nga pare ci moom ut beneen jëkkër sa jabar bu deewee nga pare ci moom ut beneen jabar sa papa bu deewee nga pare ci moom ut beneen pap sa doom bu deewee nga pare ci moom ut beneen doom ku dee nit ñi pare nañ ci yow allahu akbar ku dee kenn dong moo la bëgg ku dee kenn kese kese moo la bëgg ku dee déedéet yàlla moo tax boo dee ñu ne jébbal nañ ko boroomam gis nga de jébbal nañ ko boroomam ku dee kenn dong nga la bëgg muy yàlla ku dee kenn bëggu la kon yàlla nañu yàlla bëgg yàlla nañu yàlla saxal ci suñu diine ñoo ngi jéggalu guddaay bi incha allah balaa ñuy pare dars bi bëgg naa kenn ku nekk ci ñun liiral ñu ko daal di koy firiwaat bismillahi tabaraka wa taala bu ñu paree aussi ñu daal di wax kenn ku nekk heure bi nga xam ne moom nga tànn pour di tudd yàlla ñu daal di koy noté incha allah léegi léegi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.